waaw comme ni ngeen ko déggeelee rek asalaamaaleykum euh, euh, sama mbokk yi maa ngi leen nii bu baax a baax tey dama ñëwoon ak yéen pour dégtal leen si li ma jot a dund mooy situation jeunesse citoyenne bi yëpp à mu nekk situation boo xam te ne ni nax neexul si génne ko ndaxte euh, jàpp naa ne Tivaouane moom. daanaka fa laa yaroo fa laa màggee fa defee sama lépp il m'a tout donné sérieusement parlant bon neexul nag nga toog di wax ci sa dëkk loo xam te ne situation boo xam ne dund nga ko fa te euh, évidemment c'est saa qu'on va essayer de faire mooy lan euh, suñu dëkk bii di Tivaouane su leen gisee euh, Baba Aïdara rek mu ngi ciy wax def na yàlla am na beneen côté bu mu doon wax boo xamante nii duma si sori ndax foofu dafa xaw a sensible xaw sensible man fu may gën a pointe du doigt mooy euh, révélation yu mu def si wàllum ICS bi mu fàtte sax MDL bi ne jeunesse yi dañ fa nekk tuan jeunesse bi euh, sérieusement soo le soo jugee soo xëyee nga jàkkaarloog ñoom dañuy dañuy toog non rien à faire sérieusement euh, amul dara loo xamante ni am nañ ko benn moyen d'occupation lu dul bal bi mooy le terrain football sérieusement ak bi point bon à part cela loolu mënul développer ab ab dëkk quand même sérieusement euh, soo xoolee suñu nekk ba ma nekkee Tivaouane bon am naa fa samay xarit ñu nekk kër Cheikh Awa Balla foo ñi tout ah Tivaouane moom daanaka euh, daanaka fu ma du ma fa du ma fa du ma fa du ma fa réer sérieusement parlant bon kon boog jàpp naa ne toog di wax si lu jëm si Tivaouane si situation yu ma dund yu ma jot a dund Tivaouane dina nekk loo xam te dina xaw a métti si man waaye on va essayer de faire on va essayer de faire incha allahu rabbi bon Tivaouane nag lu ma fa lu ma fa gën a marqué si en tant que jeune mooy que ne bon manque d'occupation am na fa benn ak aussi manque yi ndax ñun dañoo xaw dañoo xaw a dañoo xaw a euh, tuumuranke toute autorité waaw maanaam autorité politique yi ngay gis si soo génnee manam ni ñuy jàppalee seen jeunesse bi ni ñuy jàppalee seen jeunes di leen appuyer di leen jàppale soo ñëwee Tivaouane doo ko fa gis bala ñoo mën a soxla jeunesse bi rek bon politique dafa xew dafa jot bon campagne jot ngay soog a gis jeunesse bi ñu soog ñu commencé euh, les politiciens commencé ñëw si bi envers les jeunes pour mun leen demander de de de de l'appui te loolu dama koy déplorer franchement parlant ndaxte lu si mel ne usine ICS bi ak lu si mel ne MDL. Euh, mën nañoo jàppale jeunesse bi foofu mën leen a jàppale pour ñu mën leen mën na insérer si biir waaw soo dee xool teewoon amul benn centre de formation soo gisee jeunesse bi bu ñu demee si biir centre bi si biir si biir usines yi suñ dañ naan leen non vous n'êtes pas qualifié delluwaat leen seen i këyit loolu lu ko waral leen rek la mooy que ne ils ne sont pas qualifiés raison qualification boobu nag manque de qualification bi lenn rek la mooy que ne euh, Tivaouane amul benn euh, benn école benn école de centre formation bu fa am boo xam te mën na mën na mën na encadrer mën na mën na mën na mën na former les jeunes pour que ñu mën a am benn métier bu bu bu bu qualifié centre de formation bu fa nekkoon mooy mooy mooy mooy mooy mooy loo xam te ni euh, mooy la ñu woowee sépar moo nekk surtout wutu préfecture bi. sépare euh, centre de perfectionnement des artisans ruraux lañ ko tuddee woon au temps bon Tivaouane benn kii ab rural la quoi benn village benn petit village la woon dañ fa centre pour moi, pour muy mën pour muy mën di jeunesse bi nekk foofu dans dans Django ni euh, Ten, dans les petits trucs loo xam te ni qui ville bu bees da koy soxla pour loolu la c'est par dem ba avant les années 2000 c'est par na Macky Sall en 2014 defoon na defoon na leen benn benn benn promesse ne dina dina perfectionner CEPAR euh, mooy centre de formation bi ma leen wax bu ko defee CEPAR boobu moom moom rek moo mën a permettre jeunesse ci Tivaouane ñu mun a am qualification pour mën a dugg si biir usines yi comme ICS comme MDR euh, et cetera am na beneen usine bu bees sax bi bu am usine de recyclage bu am si wutu bu

parce que jeunesse Tivaouane dafa am dafa dafa dañ ko répartir en en trois euh, trois lieux euh, su ma ko répartir en trois lieux nan dafa am jeunesse Tivaouane boo xam ne ñoo ngi si biir diaspora bi am boo xam te ni ñoom nekkuñu Tivaouane nous sommes autour de Tivaouane Dakar euh, dans les sous-régions ak benn benn ak beneen jeunesse de Tivaouane boo xam te ñoo dëkk si biir Tivaouane Baba Aïdara nag ba muy wax xëy na jeunesse Tivaouane yu dëkk si biir Tivaouane ñoom ñoo ko taxoon di wax waaw ndax ñi dëkk si biir Tivaouane ñooñu noonu ñoom ñooy si biir ICS bi ñoom ñooy si biir leneen leneen waaye bu laalee xadara bi rek laal na jeunesse si Tivaouane yu nekk si adduna bi yëpp laal na waa diaspora bi laal na waa Dakar laal na waa Thiès laal na waa adduna bi yëpp waa ba ka dëkk ba si biir au fond fond du Sénégal laal na ko ndaxte jeunesse Tivaouane moom wax dëgg fa neex yàlla mooy jeunesse su xadaratul Malikia mooy jeunesse su Seydi Hadji Malick te loolu képp ku si wax rek xëy na bon ba muy wax loolu moom taxu ko woon di wax mais précision rek moom li muy li muy li muy wax si jeunesse Tivaouane nekkul ñu nekk dëkkul Tivaouane taxu muy taxul woon muy wax mais ñu nekk si biir Tivaouane di dund Tivaouane di xam lan mooy ICS di dem di fa déposer ay ay ay ay journal yi ñu leen rejeté naan leen amoo leen qualification ñu tamit di yóbbu seen CV yi ay lu nekk seen CV ñu leen rejeté naan leen amoo leen qualification ñooñu moo taxoon Baba Aïdara doon wax donc ci loolu nag il faut que ñu waxante dëgg quand même fokk ñu waxante dëgg vrai xadara bi suñu xadara la ndax Seydi Hadji Malick loolu suñu héritage la waaye tamit dafa am loo xamante nii il faut que ñu bàyyi si xel il faut ñu bàyyi si xel moo naam jeunesse moo mën a doxal ab réew Tiwaawoon soo fa gëjee depuis cent yi ba léegi 1902 nga gëj fa nga ñëwaat fa ba ren yi ba ba 2019 bi nga ñëwaat Tiwaawoon amul benn changement bu fa am te loolu dañ ko war a déplorer mais ana ana les milliardaires de Serigne Babacar Sy fan lañ nekk ñi nekk si si diaspora bi di def seen vidéo di déplorer euh, kaaw Baba Aïdara bi non ils n'ont pas pris même un sou pour investir à Tivaouane defuñu ko mais investissement amul Tivaouane soo dee xool Tivaouane lu ma gën a métti si Tivaouane amul sax benn hôpital privé bu fa am amu fa hôpital public bi moo gën a feebar malade yi fa nekk sama papa euh, entraîné fa un mois man ak moom ñoo fa nekkoon xam naa situation yu ñu dund lal ya fa nekk lal yu pourri la néeg ya moo ëpp yoo biir nekk sa nga nekk sa néeg ay yoo laa leen waxal ak yeneen ak yeneen yeneen bu ñu lekkee soxna Aida si moom moo leen yóbbul ay kii ñam ñu lekk ñu fi nekk di wax ñëpp seen papa ak seen yaay bu feebaree duñ dugg si hôpital ba fan la ñuy fajoo ji mooy Dakar Thiès wala ñu dem Europe képp koo fi gis mu dëkk Tivaouane seen parent bu feebaree lu ñu njëkk xalaat du nekk Tivaouane mais en dehors de Tivaouane parce que hôpital bi baaxul tey baaxul suba te loolu lu ñuy déplorer la wax dëgg fa ne yàlla Tivaouane ñoo ngi dund boo xam ni situation bu bu bu métti métti métti nekkuma nag tey ñëw ma pour ŋàññi Tiwaawan wala pour pour pour pour pour xaawi sutura Tiwaawan non non parce que su ma sañoon lii may wax situation bi ñuy dund suba dina dina dem ba ba deñ te bu jeexee incha allahu rabi loolu suñu suñu ndam la ñun jeunesse Tiwaawan ndax ñun ñoo si procuré wu. waaw soo leen xoolee Tiwaawan amul benn centre de formation bu élève mën a jàng amu fa képp ku fay jàng sa jàng bac lay am sa après le bac centre de formation zéro da dem Dakar nga dem Thiès ñëpp génn na Tiwaawan kenn desitu sama promotionnaire bi ñëpp ña fa ñoo fa nekk noonu ñëpp kenn desu fa ñëpp génn nañ dem parce que loolu moo tax parce que amuñu benn politique boo xam te mën na téye jeunesse citoyenne ñu mën fa toog mën fa toog liggéey amu fa. waaw parce que mënoo am mu amu benn centre centre de formation bu fa nekk sax lu ma leen wax léegi yàqu na waaw Macky Sall digoon nañ dina ko perfectionné centre boo xam depuis avant 2000 marché tout. jeunesse citoyenne képp kuy liggéey si ICS moo leen ko tey fan ngay génnee mooy Mboro ngay génnee wala ngay génnee Thiès wala ngay génnee Dakar mais Tivaouane amul benn centre de formation boo xam te ne dina mën a permettre jeunesse bi ñu mën a ñu mën a infiltrer dans les usines comme ICS comme MDR te ça c' est catastrophique mais imagine toi xoolal petit département bu toll ne Tivaouane département bu ndaw boo xam te ni ça ne fait même pas euh, dix mille habitants même pas dix mille habitants si bi si kii euh, pardon commune de Tivaouane communauté de Birtuan, ça fait même pas 10 000 habitants. Nous avons fait usines, les plus grandes usines, sur le département, mais SAS et MDR. Nous avons fait des centaines d'emplois et 70 000 emplois comme, comme MDR. SAS, nous avons presque une, une centaine, 100, 100 000 employés. emplois. Mais nous, les jeunes jeunes citoyens, nous n'avons même pas 10 000 habitants. Les jeunes citoyens, ça fait presque 53 Mais nous avons entretenu, nous avons diapolé, nous avons des formations qualifiables. ah su ma toogee di dégg monsieur le maire naan monsieur le maire Diagne Sy Mbengue au passage maa ngi koy bu baax a baax sama nijaay mu naan moom bon employé na cinquante personnes imagine toi c'est une xoolal jeunesse si Tivaouane amuñu dara lu ñu def Tivaouane jeunesse suñu principale occupation lenn la mooy football ba ataaya ba ak jeex na loolu lañ ci am terrain de football ak ataaya au passage maa ngi nuyu suma mbokk waa Kër Cheikh Awa Balla yëpp maa leen di bu baax a baax a baax ah wax dëgg fa ne yàlla loolu mu nekk situation bu ñuy dund te dama leen wax ne Tivaouane su leen gisee situation bu Palestine nekk Tivaouane moom mooy genre mën nañ ko tuddee comme genre Palestine parce que Tivaouane soo fa ñëwee lu amul fenn ngay gis Tivaouane Tivaouane bépp kër diine yi nekk si si si si Sénégal soo ñëwee Tivaouane am nañ fa am nañ fa am nañ fa diwaan soo dee xool Seydi Hadji Malick moo ngi fa nga xool waa kër sëñ Touba yi ñoo ngi fa au passage waa kër sëñ Cheikh Mourou Ba ak waa kër kër Cheikh Awa Balla fa ma dëkk ak soo dee xool ceddo yi ñoo ngi fa soo dee xool chrétiens yi ñoo ngi fa laayeen yi ñoo ngi fa mooy waa jàmmalaay kon boog Tivaouane dafa nekk benn ville boo xam te nii ñëpp la boole kon book sooy wax si jeunesse Tivaouane xam nga ne yow yaa ngi laalaal yi ñëpp mais ba laalaal woo seulement les jeunesses Tidjane donc loolu tamit précision bu am solo la donc en grosso modo vraiment vraiment vraiment suñu sañoon situation bu jeunesse Tivaouane bi dund dina changé dina changer ba ëllëg si biir suñu demee ba ñu ñu dem ba suñuy doom ñëw nañ mën fa mën a fekk benn dëkk bu bu bu naat dëkk boo xam te ne centre formation yaa ngi dox dëkk boo xam te ni bon hôpital yi ko feebar di nga mën a faju dëkk boo xam te ni xoolal suñu sand football bi muy wax sax maa ngi leen teewaan ñaari ñaari ñaari occupation la ñu am muy ataaya jaag football ba soo xoolee suñu centre football football Kayor euh, foot léegi jaay nañ ko kooku moom dëkku sax teewaan léegi euh, moom moo ñëwoon Ligue 2 fan euh, yii année si ginnaaw léegi ñoo ngi am ñoo ngi am dames ba fa nekk dames boo xam ne c'est c'est c'est communal mais soo yoo xoolee dames doo ko sax dégg léegi doo ko sax dégg lan moo tax amuñu politique sportif bu ko war a accompagner da ngay ñëw Tivaouane ñu lay tuddal ay conseils yoo xamante ni non c'est du n'importe quoi da ngay gis koo xamante ni si wàllum làmb rek lay yëngu ñu fal ko conseil sportif am na fi mais <laughs> loolu naka la mën a def ab dëkk naka la mën a développer ak loolu. teewoon euh, jeunesse bi dañoo war a infiltrer si mairie bi dañoo war a infiltrer si mairie bi liggéey xam ne Tivaouane ay jeunes takk fa ne jeunesse bi ñoom ñoo mën a doxal réew bi di euh, dëkk suñu dëkk bi di Tivaouane man loolu laa gëm waaw man loolu laa gëm encore une fois di au passage suñu sëriñ si yëpp di di ni ko dalee si xalifa général des Tidianes mu wàcc suuf parce que di ko di ziar ñëpp leen nii bu baax a baax baax di nga xam ne seen mbokk seen xarit seen taalibe seen seen seen doomu ndey comme ni ma koy faral di waxee ndax daanaka sama yaay sax daf may faral di wax loolu naa ma yow arro man njaboon naa ndax ku ma gis rek euh, koo gis rek ne ko doomu ndey kon boog euh, moom moo ñëwoon tey pour dégtal leen situation bu Tivaouane di dund euh, vraiment mu nekk situation yu désastreuse di ñaan yàlla mu saafara lu mu gën a gaawee di ñaan Macky Sall le président de tous lee Sénégalais mu mun si am ay saafara ñu mu gën a gaawee ñu jaay rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam di ko ñaan bu baax a baax a baax a baax ah di di ñaanal ñëpp aussi di ñaan aussi vidéo bi képp ku bëgg Tivaouane képp ku yaakaar Tivaouane